رؤيته يوم تعابني تكفي زلة القدم من الكريم أتى وصل الكريم إلى عبد الكريم فكنا خالص الكرم شيخنا شيخ سعد لبي شيخنا شيخ سعد لبي gaynde ga ca nirsaat bàyyi Cheikh Taalib yaag si daa teg bu naan naa xadraame bàyyi Cheikh al Maxfo maami Serif alwali maane Njaay Cheikh na Cheikh Saad bu neena ashaa ila nafsi min leyla wa darratiha wala tuqaaribuhu jumnu wala daadu وكيف لا وهو خير الخلق قاتبة سيصد بنينا الطاه رب الورى ما لم ينال أحد من المعارف من نور تجلى ومن قرب العلي الذي يصابه كمد سيصد بنينا بل فاتك ركبة سمامام دي الله جنتبه booba jant dem na timis mu delo si kota kusam Seex sahat bu nee ay dara sama nee fanzur ila sams isrudat ni dawati ya. nabi kharna wer weer wal badru suqa wa asjaaruluhu sajaru nabil mustafa khairul anbiya sherif nee na mi ngi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na nu yàlla musal ci seytaane ak i mi ngi ciy teg turu sunu borom woowi di bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla buur bi nga xam ni borom lépp moom buur bi azza wa jalla mi ngi jullee ka sëlmal ki nga xam yàlla da ko yónni muy kado yërmande ci àdduna bi yëpp mbokk yi Chérif nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigal bu jóge ci xalifa sunu maam kër Cheikh al Maxfu di Cheikh Maxfu doomu Cheikh Mouhamed Fadel doomu Cheikh al Maxfu doomu Cheikh na Cheikh Saad di sunu sëriñ di sunu kilifa ñun tënku ñun ñëpp waa kër Cheikh Maxfu ci ndigalam ci kaddoom ak ci jëfam mu woo ko moom léegi Chérif Alwely mi moom ak Cheikh Moussa Boy mi nanu woo Cheikh Makhtar Diop mi nga xam ni mooy jëwrinu kër gi mi nga xam ni moo yor baatu waa kër Cheikh Al Mahfou woo njabootuk cheikh dey calaw ñi nga xam ne ñooy doomi baayam sunu taawu baay sëriñ naa Momadou di Momadou sek, mi ngi nii ànd ak ay rakkam yëpp ànd ak cheikh Papa Ngañ mi nga xam ni la ci sëriñ naa waaye di kenn ci kër cheikh mohammed vadal di kenn ci kër cheikh al Makhfu mi ngi nii toog mu ni na woo cheikh kër gi ak mag gi kër yi cheikh Mouhamed ngi cheikh mi ngi ak wa kurel gi ak Cheikh mbay mi ak mag ak Cheikh bay Fall ak mag ñi nga xamni ak Cheikh Roqeya ak njabot gi yeb ku gis ak ku gisul am ndigal ndigal lo xamni dafa joge ci khalifa keur Cheikh Maxfu te ndigal jëfe rek nawo dudu sar ñang ak Demba ñang ñu jege si ñoom ñaar mu am kàddu yu leen xalifa kër Cheikh Maxfu yóbbante ci ñoom ñaar mu wax leen ko mu jottali leen ko képp koo xam ni ñëwoon nga booy dem nga yóbbaale ko te nga xam ni ndigalam moo bàyyeekoo ci ñun jëm si ci yéen bismillah nee na bi njëkk bi mu ko sant nee na bind na ko waajal ko tamponé ko dinañ ko yëkkati jàng léegi ñépp koy dem nga yóbbaale ko bi ci des mooy bi jëm ci Demba Silla Ñang mi ñoo ngi koy bind léegi tamponé ko jox ko ko cheikh maxfu nee mi ngi gërëm dudu sar ñang mi. diko jaarale ci man mi di buntam ci mom ndax wa atul buyut min abwabiha diko ñaanal yalla fan wu gudd wér gi yaram ngërëmu suñu borom ak ngërëmu suñu maam Cheikh jaarale ko sama bu jaarale ko ci buntam muy man mii bis ne ka tey sëriñ mu di ñu jox ko fooy mbokk yi bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima فليعلم من نظر في هذه الورقة بأن الشيخ الولي أيدرة ابن شيخ مح... بإذن خليفة الشيخ مخفو الشيخ مخفو ابن الشيخ محمد فاضل قدم لمريده دودو سارنيان لينا تي كيد وي موي غيناو بي ني جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم دانيو بيني ني كيب كو خامني خول nga كيد نغا خامني شيخ الولي ايدرا doomu Cheikh Mouhamed Fadel ci ndigalu magam kilifaam xalifa sunu maam Cheikh Mouhamed Fadel xalifa sunu maam Cheikh al Maxfu bis ni ki tey muqaddamal nañ seen taalibe bii Doudou Saar Niang tudde ko Cheikh Doudou Saar Niang jox nañ ko ndigal bis ni ki tey képp koo xam ni sàkku nga ci moom werdu xaadir na la ko jox ñoo ngi ñaan yàlla ali ñoo ngi ñaan yàlla buur bi azza wa jalla yàlla na ko yàlla defal fatxu defal ko kep ko xamni ni jël nga ci mom werd ci darajay sunu mam sunu wasila alqutbu rabbani wal samdani fard fardu afradil awliya di cheikhina cheikh saadu abi ñong koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér gi yaram ak afiya اللهم صل على سيدنا muhammad bismillah الله man nasru الا من عند الله بيجي ديس موي نينا na كو na مو ndigal mu قادر werdu mu ngi nii bind nañ ko muy xasbunallahu wa ni'mal wakil deux cent fois astaghfirullah alazim deux cent fois la ilaha illa allahu almaliku alhaqu almubin deux cent fois allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sallim baada kulli faridatin cheikh modou di di dangay siggi moo di jàppal ci wencal kaw yi rek bu ñaanee ba pare nga jàppale amin amin mbokk yi mu ni lii nag jomb ko moom Cheikh Dour Sarr ñaami liggéey na ko ci kër gi ci ëtt bi di ëtt sunu maam Cheikh Almaf yàlla na doon njiglaayam te mu ràppal ko kon bis ne ka tey Cheikh Dour ñaa lañ koy woowe jox nañ ko ndigal képp ku sàkku ci moom werdu xaadir na ko ko jox daanañ ko ko wooye bu jëkk nag waaye amul woon tey la koy doora doon ndigal la mi ngi noonu ñu ngi koy ñaan yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla buur bi azza wa jalla kaala gi mu yor jóge ci doomu Cheikh al doomu Cheikh na Cheikh ci toogaayam bu jëkk moom la jëkk a joxe ndigal ñu seexal ko muy nit ku baax moom Cheikh Doudou Sarr Ndiambi moom Cheikh Maxfu xam li ko war lool nekk ci mënoon na ko woo fële seexal ko ñun ñëpp ñu dem ci moom xam na ni Cheikh Doudou Sarr Ndiambi bu nee nii ci kër gi ñu génn ak ba mu jaxasoog ñëpp ci man mii la jaar nee na kon bu ko woo sant ko lii ci moom te lu jiitu lii waxtaane nañ ko buñ nee suba la gàmm man ak moom kott ak yàlla moom Cheikh Mahfou ba tey jii mu ni ma wool Cheikh Makhtar àndal ak Cheikh ngeen woo Cheikh Makhtar woo Cheikh Modou ak magi taalibe ngir xamal ñepp ni bis ne que tey jox la ndigal nga xeexal Cheikh Doudou star mi te ngeerum la andal sama ñaan gunge ko asalaamaaleykum ngeen gis nag di Cheikh Doudou mi Cheikh Doudou mi ngeen gis dañuy tutani ñaari kàddu ci mom Cheikh Ousmane Diagne rahmatullahi alayhi mo fi nekkon president conseil supérieur qadiria bi mu fi joge ñu jox ko Cheikh Ousmane Diop keroog dëju Cheikh Ousmane Diop taalibe yeeg ñëpp danoo waxtaan ni conseil supérieur xaadiriya kenn moo ñu ci doy mooy Cheikh du Sarr Ñaami kon loolu confiance la bu nekkee ci ëtt bi bokk ci ñu jox ko loolu confiance la loolu mu yor jikko jooji cheikh gi ko shérif defal tey da koo làmb ndax baatu cheikh nag araf yi ci lekk yëpp bu ne am na lu muy tekki alif gi jëkk gi aliful ma'luuf la da ngay miin nit ñi ñëpp ñëpp miin la te kii ku ko xam xam Cheikh Demba mi ñu miin nit ñi lañ nit ñi miin lañ al muminin nag yonent mi nee na ya'laf wa yu'laf wala xayra fi man laa ya'laf wala yu'laf wa xayru naasi anfaahum li naas ab jullit bu ne yonent bi nee na war ngaa miin nit ñi nit ñi miin la aw yiw nag nekkul ku miinul nit ñi nit ñi miinuñu la ki gën ci nit ñi nag mooy kii jariñ nit ñi alif gi nekk laam gi ñëw di layyinal jaanib ñi ñu nooy ak wet siin gi ñëw di shaakiran li ni'matillah di sant rek xéewalu sunu borom yaa gi ñëw di ya'muru bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar di digle lu baax rek di tere lu bon ñoom ñi day ñun seeni rakk lañ waaye fun na fekk dañ naan ay doomi soxna ngi ku ñuy sukkal ku ne da ngay fuñ lay sikkale kon nok ñi ñuy digal lu bax di ñu tere safan ba te kuntum khayra ummatin la yàlla wax uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yaa ngi ñëw di al khawf min allah fo leen fek kurus lañu yor dañuy jaamu yàlla dañuy nafilé kon nok ñi ñaan yàlla bur bi azza wa jalla seen cheikh gi yàlla na ràpp ci seen kaw bop bi bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te mbokk yi nañu xamni نون سنو ورد القادرية موي طريقة الحق من رب الأنام أتى بها الأمين إلى من لا يبارى غير الأنام إمام المرسلين كما قد نال من ربه ما قد تمنى موي طريقة الحق طريقتنا سعدية فاضلية إلى ابن عطاء الله تنمى إلى الجيل جنيدية كرحية علوية إلى خاتم الأنبياء ذي الجود والنيل te boy xol kayit yu ñu joxe lépp lépp alquran la kon no ngi ci ték benen bi ci téggu Cheikh Demba Niang mi Cheikh Mahfou nee na naa sa wajuru jigen wi Cheikh Roqay Mbay di taalibe Cheikh mohammed wad doomu Cheikh Al Mahfou ku Cheikh mohammed Baadul geureum Cheikh Mahfou geureum na la nee na mu seedeel la yow mii di waajuram ni sa doom jii toog di taalibeem jël ci moom werd bis ni ke tey gërëm na ko sant na ko jox na ko ndigal ci ñu koy woowee cheikh muy fajo aajo jox na ko ndigal ku soxla werdu xaadir mu jox la ko ku tàllal loxoom bëgg a jokk ci moom ndax loolu mooy cheikh jox na ko ci ndigal nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ci lu feeñ ak lu nëbbu te li nga xam ni baatin la digganteem ak moom moo ëpp li feeñ kon cheikh Makhtar nga mottali yéene ji cheikh gi nag mooy li ñu bind ci kayit gi lii rek ijaaza la moom bosom ñu ngi koy bind jébbal ko kilifa gu mag gi mu jox ko ko ci loxoom alhamdulilah Boki yi sëriñ ñu ne ñu terek tuuti rek gentalal ñëpp dal ngeen tàllal mu ñaanal leen ci ndigalu kilifa gu mag ndax loolu la digal Chérif nee na képp ku tàllal rek tey ci ëtt bi yal na yàlla faj say aajo ku nekk ci ëtt bi itam fekke ñaan gi fa nga aajo aajo yi taalibe yep fu waay jógee noo ngi lay ñoo ngi lay gërëm di la ñaanal ci turu Cheikh Makhtar Diop mii yor baatu këru Cheikh Makhf ndax loolu waxam la nag du sunu wax ñoo ngi koy jox sax mu jottali ko bismillah balaa ñaan ngi tàmbali jottali gërëm li ma waxal yaayo mu ni Cheikh Makhtar mi nga xam ni mooy an naatiqu rasmi li usrati jëddina cheikh Mahfou doomu cheikh Mouhamed doomu cheikh na cheikh Saad Bou mooy porte parole kër cheikh Mahfou mbokk yi yéen ñëpp ñëw Nimzaat tey gis ngeen suuf si ni mu tàllaloo jëfam la moom mi maa ngi ñëw am na fi ay fan fukki fan ak ñaar tracteur bi mu jëlee Nouakchott ay millions la ko fay beneen bi mooy képp ku dem saalihiina ci xabru cheikh na cheikh Saad Bou waj'al darihiya ka baytikal haram tuqda bihi hajatu sa'ir anam soxnam mom, soxna Cheikh magat soxnam mo genné million yu bari ci alalu boppam jigen de kenn dimbaliwu ko ci bobu Cheikh Aya mi ngi dundu muniko dama bëgg nga may ma defal qablu Cheikh na Cheikh sadbu Cheikh Aya ni ko da nga ci bolé walé sama qabru papa Cheikh Talibou ya mu far bolé lepp Dubaay la jënde tissu yi commandé ko mu ñëw grillage yi lépp giri yi soxna Cheikh Makhtar Diop bi gën la ci def kenn jàppalewu ko ci ku borom këram mi nag dërëmu kenn demu ci kenn dimbaliwu ko ci xaalis bu leyu la it soxnaam moo ko def soxna màggat di féeteem di xaritam ديرل كو مومي توك مبوكي نك شيخنا الشيخ سعد بن يا ربنا من قدمنا بنفسه اجعله في دارين فوق جنسه شيخنا الشيخ سعد بوخنا الشيخ مخفو وكل من قدم بالاخلاص لسيد المخفوس ذي الاخلاص اكرم له بالوصل العرفاني وللشهود الواحد المنان كون شيخ مختار جوب لا نيي بغا جوخ مو يكتي لي شريف مني خم غير قبر الشيخ نشيخ شيخ سعد بو كوني مان غاكو ديفار واي نك سيتو الشيخ مختار جوب دي خليفه شيخ مختار جوب دي تالي كير الشيخ مخفو ديف كو ساغوا كير شيخ مخفو ييب لا كون شيخ مخفو مي دي شريف مخفو دوم الشيخ محمد فاضل دي خليفه الشيخ مخفو ني تودي كو شيخ مخفو نك ba mu jël Cheikh Makhtar Diop mii ni ko yaa yor baatu këru waa kër Cheikh Mahfou gisoon na li bu leen fekk chérif ba mu toog woyof ngeen defar ni nitu ordinaire la waaye ba mu koy def nag yow la woo chérif alwali ñu ne kat dem naa ci liggéey bi nga xam ni moom la

waaw yow laay déglu loolu mhm. nee loolu may wax démb la même ma ñëw nee ñun ñëpp nee ba doomam ji moom sax nee sama mag la léegi nee ñun ñëpp kenn ku ne ci ñun soxla woo sa barke baay nee ci wërsëg déedéet cheikh na cheikh Sadbu moo ñu liggéeyal waaye moom ci ngoram ci mbaaxam ñun ñëpp moo ñu yore cheikh max foo ñu yore yu moo yor suñuy doom yor suñuy soxna ku ko wax ci kaw ak koo wax ci suuf kon mu jox ko loolu ndigal loolu kon cheikh max fu jiite nu oto yi mat na 10 mat na 20 mat na 30 waaye assurance yëpp moo dagg ak yeneen ak yeneen ñu ni loolu dayil ñu ni kan nak mo jité xaadiriya pour l' Afrique constitué xaadira ñu ni kër Cheikh Mahfoudou Sarr Niang ba tey Cheikh Mahfou génnul waaye bu ñu demee armée armée la it ñu ni kan mo liggéey ñu ni Cheikh Maguette Diop keur Cheikh Mahfou kon batay keur kër Cheikh Mahfou gennul kon danaan macha allah eh, li am importance ndax keur Cheikh na Cheikh Saad lépp am importance waye ku liggéey at atubi Cheikh Mahfou ku yore njàngu alxuraan mi kër Cheikh de Thialaw nee ñun daal kër Cheikh Mahfou jéggaani wunu dara Cheikh Demba ñu ngi lay ziar Cheikh Diouf Sarr ñu ngi lay ziar nee waa Cheikh Oumar Sarr ma nele Baye at xaana Sarr maam Cheikh Paté Sarr ci Médina Sarr nee di kenn nit nag ci Sëriñ Cheikh Mahfou Aïdara di ko baax ku bëgg it ndamoon sëy ba Chérif démb bi oto yi déparé way yow lay déglu ku fekkee daa man a nettali moo tax nee na yow yow sama kilifa day bañ a fattu ne nee Cheikh Sidaati Malay ni mooy sëriñam waaye daa ñëw ren ñëw Nimzaat Korité daawul ñëw Nimzaat Korité ñëw fa ñëw rek ngir gumba Cheikh Mahfou nekk ci wetam ne kon loolu <clears throat> jaaju na ñu wax ko. ne Cheikh Makhtar ne liko dalé dale ci ñun doom aja doomu mi tuuti ma dugal sama tank, rek ne rak amatul ñepp Cheikh Max fooy seen baay ne ku ci ne ca gamu ko ne fileeg mi ngi dundu keur Cheikh Max fu ñëpp benn la doon man su ko waxee gëm ko bokk naa ci ñi ko gën a jege maa ko gën a ñeme ñëpp maa koy wax lépp lu ma bëgg ak lu ma xalaat te dana ko neex kilifa nag bu lewatee bëggi boppam ubbi boppam ba miin ko ñeme ko ne kilifa googu daal mooy kilifa gu baax waaye bu ñu toppee nag ki nii mu mel nee dana nu alak nag ñun ñëpp baax nag nee kii jarbaatam la Cheikh Saad bu mi doomam la Chérif at xaanaay baayam Cheikh Saaya ko jur Cheikh Mahfou Cheikh na Cheikh Saad bu nee di weddi moom mi li ma de nee ni ko Cheikh Mahfou tafe ci boppam nee ñun sax dañ ciy fiir nag ñun ñëpp di ñu ko bëgg man ku ko jege ma mere la ndax damaa jàpp ni man dong la moom rek laa xam moom laa am ku ma fonk na ma ko fonkle ku ma jàpp na ko jàpp ku ko romb ñëw ci man bëgguma laa gis ndax nag kilifteef gi moom force la mu defal ma force la mu bëgg ma it force la waaye yàlla dogal ma it ma bëgg ko nag moo ma gënal ku yàlla bind ku ma bokk rek moo la gënal nëbbu ma ko it kenn na ma ko ñëpp jàppal di ko ñaanal yàlla képp ku bëgg sa aajo faju maa ngi ñaan ci yaw heure boo xëyee nga ñaan Cheikh Maf mu yàgg fi te wér njariñal jullit yi la njariñal kër Cheikh Maf la tey mooy dynamo bi ne gis ngeen Dinamo ni mu amee solo ci courant ne mooy Cheikh Mahfou ne macha allah yàlla na yàgg yàlla na wir yàlla na barkeel li mu naal ci kër Cheikh Mahfou yëpp yàlla na ko àggale amin dem ba ne si li ma doon wax sànq mooy ba nga wax Cheikh Oumar ñu départ Ngumba lu ñu xaw a guddeel ni ñaa nga fa Serigne Boye du dem bay kenn waaye ni ñaa ngi ci mbaar mi toog oto yu doyul Serigne Boye du dem bàyyi kenn fekk Cheikh Omar mais indi na fa ñaari 4x4 mu ko am na bu ma gaaree sama biir kër nan dem jëlee ko ñu yokk ci muy ñett loolu le temps ñuy dem Mérina Sarr di jëli oto ba di ko indi station di ko defaraat moo na xaw a yàggal bu ñu jëli timis comme taxawaay boobu taxaw na ko dañ ko Serigne Boye. Demba Demba say doom yaa aji soxna aji Marème Dieng mi ngi fii. di taalibe taalibe Cheikhna Cheikh Saad di mbokk ci deret mi ngi fi teew lu jëm ci ñaari jëmb yi di Cheikh Demba ak Cheikh Doudou mii Cheikh Demba mii toog fi mu teg sama yaay fi mu teg sama yaay doy na ma rek ci lu may wax ci moom lu may seede ci moom ndax ñun amuñu luddul soxna mina mintu cheikh na Mouhamed dom doomu cheikh al maqu cheikh na cheikh Sadbu digganteem ak soxna mina nak mënuma koo wax ci mbolo ndax bu ko waxé nit ñi fi lañuy fanan tay kon neena mi ngi ñaan yalla li ñu ko defal tay mu barkel te mu dund ci nak lu yag ba ko tamit naa tamit. شيخ المخفو دي خليفه شيخ المخفو دي خليفه شيخ المخفو سنت نكو غرم نكو سنت ميريتنا لي نيو كو ديفال تي نيون واكل شيخ المخفو شيخ يتسون بير طالبه شيخ يتسون بير طالبه باريول باريول ndax duñ jey kenn talibé yépp bax nañ talibé yépp bax nañ talibé yépp ay talibé lañ talibé yépp ay julit lañ talibé yépp ay julit lañ na loo xam ne si. waaye am na loo xam ne si. ay garaat la ay garaat la. nit ku ne nit ku nekk. yàlla moo ko koy jagleel. yàlla moo ko koy jagleel. ñun ñuy toog ñun ñëpp. ñun ñuy toog ñun ñëpp. bëgg nañ dem màkk. buñ bëgg nañoo dem màkk. ba ci man mi taxaw ba ci man mii taxaw tegaguma sama tànk foofu tegaguma sama tànk ca Makka yàlla moo ko dogalagul kon nag affaire cheikh kon affaire cheikh taalibe yëpp bëgg nañ ko taalibe yëpp bëgg nañ ko taalibe yëpp liggéey nañ pour am ko taalibe yëpp liggéey nañ pour am ko waaye yàlla moo koy jagleel waaye nag yàlla moo koy jagleel ku ko neex rek moom nag liggéey na moom nag liggéey na li tax ñu defal li tax ñu defal ko ko ndax ci wàllu julliteem ndax ci wàllu julliteem ak wàllu liggéeyu taalibe loolu lépp fa tabaarakallah matal na ko ñun ñëpp lay jox kàddu. kon nag kàddu yi il faut ma wax ko. kon nag kàddu yi il faut ma wax ko. yàlla na barkeel yàlla na ci dund. yàlla na ci dund yàlla na seen njaboot doon yàlla na seen njaboot doon eh na mbooloo mépp wax Chérif Alwely mii yàlla na fi yàgg te wér. ah waaw. Cheikh Mahfou moom dana fi yàgg bu soxla. waa Cheikh Makhtar Diop mii nag dama ko bëggoon a wax mu jóg ba ñun ñëpp gis jëmmam ci far mu jóg. kii moo yor kàddu waa kër Cheikh Mahfou tey muy Cheikh Makhtar Diop doomu Cheikh Mahfou Diop. doomu Cheikh Makhtar Job, borom Daru Job, mooy jëm ji mom lañu ñuy wëgg jox kaddu gi mu gëreum mbolo mi taalibe cheikh al walid do a def ñaan. waye balam bala wax. waye neena bala Cheikh Makhtar Diop wax. ñu ngi sédel yalla ngi sédel yalla ni. Minimum. ak Cheikhna Cheikh Saad bu ni magi talibe yi àndoon ak suñu bay batay ñi ngi tok kuy juk dañ lay japp nga juk kuy tok da ngay wonk fi sori na na ñi ngi and ak ñun ngi ci ngor ñi ngi and ak ñun ci teranga ñi ngi and ak ñun ci sutura ñok seenu njabot ñok seenu njabot ñi ngi leen ni ñaanal yalla ñi ngi leen ngi leen ñoo ngi leen di sant. may ber nag may ber nag. ñaan ñaan. di ber ngërëm. di ber ngërëm. di ber ak cant. di beruk cant. jëmale ko jëmale ko. kuréel gii ma yàlla boole. kuréel gii yàlla boole ma ñoom. maa ngi leen di ñaanal. maa ngi leen di ñaanal. maa ngi bég ci yéen. maa ngi bég ci yéen. maa ngi làqu ci gannaaw Cheikhna Cheikh maa ngi làqu ci gannaaw sama maam Cheikhna Cheikh Saad. di ko ñaan. di ko ñaan. na faj seen ajo muy waa aljamaariya. muy ah mag ñi ci ne. mag ñi ci ak ndaw ñi. ak ndaw ñi. ñi fi nekkoon démb. ñi fi nekkoon ak ñi ñëw tey. ak ñi ñëw tey. ci yoon wi di ñëw. ak ñi ci yoon ñëw. mbokk yi Cheikh Makhtar Diop nee na asalaamualeykum. Cheikh Makhtar Diop nee na ñoo ngi ziyaare waa kër Alu Bayti ñi nekk fii. di ci teg ñaari cheikh yii ñu seexal léegi di cheikh Dut Sar ñaa ak cheikh Demba ñaa ñoo ngi ñaan yàlla weeru koor wi yàlla suturaal ñu ba duñu ci tarxiis ba yàlla nangu sunu koor dëgg ci nag ba tabbal ñu ajana nee na Chérif Alwely Aïdara dafa sàq mi ab lancam نينا شريب با شيخ مخفو خليفه شيخ مخفو دا فا واخني طالبي يي مو فيكون اك بايام شيخ محمد فادل ني طالبي يي ماك موم شيخ مخفو تي بوبام جابيتو لين اي طالبي ndax talibé dina ag fo xamni si dotul talibé waye way jur lay don té lolou nak te nee na te loolu nag da koy fedd li ndax mag ñooñu ndax mag ñooñi fu ñu toll fu mu geesu gis leen nee na nit dina toll ci âge boo xam ne si bu toogee dematul fenn kenn dootu ko sikk te nee na toog loo ko sax mooy jaadu waaye mag moo xam ne sii leer na ne la sa wérug yaram mayatu la ko te lu xew mu jóg. Eh, kooka boo ko bëggee jàppee toujours taalibe. kooka boo ko bëggee jàppee toujours taalibe. yaa ngi ci erreur yaa ngi ci erreur. benn Cheikh Baye Fall mii toog. benn Cheikh Baye Fall mii toog. atam mayetu ko atam mayetu ko ko. mayetu ko rang-rang bii metti rang-rang bii metti na. di ñëw ci korite gi. ba léegi bàyyiwul mi ngi ciy jaar di ñëw ci korite gi. kon ñii du ñuy ay way jur lañu ci moom. ci Cheikh Mahfou nee na mi ngi ñaan yàlla seen fan gën a gudd seenu fan gën a gudd ku ci télé yàlla delloowaat la ba ngay ndaw ku ci télé yàlla delloowaat la ba ngay ndaw bég na ci ñoom nee na kon Cheikh Mahfou xam leen ni bég na ci yéen ki lay wettili ki lay wettili foo toll foo toll ki lay wettili ki lay wettili di ñaan guddi guddi ak bëccëg ak bëccëg mënatoo ko fay mënatoo ko fay leer na ko ni mag ñi te leer na ko ni mag ñi kum ci gisewul ci saayir it kum ci gisewul it ci saayir sab xol jógul ca moom sab xol jógul ca moom sag ñaanit jógul ca moom sag ñaanit jógul ca moom kon nee na mi ngi sant yàlla bu baax bi ko yàlla bàyyeeg taalibe yu mag yi di ñaan yàlla taalibe yu ndaw yi ngeen roy ci taalibe yu mag ndax kat gàcce ngaalaama. ndax ñoom kat gàcce ngaalaama. amuñu benn gak gak, amuñu benn gak gak, digganteeg ak seen sëriñ. kon ñaan gii wali ñaan ci gone yi. kon ñaan gii Chérif Al Waly ñaan ci xale yi. yàlla na ko nangu. yàlla na ko nangu. bi ci bi ci bu julli wuñu suba. bu fekkee julli wuñu suba. bu tàkkusaanee. bu tàkkusaanee. ñun ñëpp. ñun ñëpp. nañ daje ci xayma bi. nañu daje ci kanamu xayma Cheikh al Maxfu xalifa Cheikh Maxfu. ndax waxtaan man war naa am. ndax waxtaan war naa am. bi yàlla falee ba léegi. bi ko yàlla tegee ci kanamu njaboot gi ba léegi. te bëggu ko. te bëggu ko. mësu koo bëgg. mësu koo bëgg. mësu koo yàkkamti. mësu koo yàkkamti. waaye yàlla mooy dogal. waaye yàlla mooy dogal. ba ko dogalee. ba ko yàlla dogalee. nangu na ko nag. nangu na ko it. ndax jullit la. ndax jullit la. waaye metti na. waaye metti na. lu metti rek la ñuy muñ. waaye lu metti rek la ñuy muñ. bu ko defee ñu daje ci xaymaam ñu daje ci buntu xaymaam ndax moom war naa waxtaan ak nit ndax moom Cheikh Mahfou xalifa bi war naa yëkkati kàddoom déclaré waxtaan ak mbooloom jullit yi ba mu toogee ba léegi kenn déggu ko te war naa wax mbooloo mi. te war naa wax ak mbooloo mi. su fekkente ni bii dañuy julli. bu fekkee ni dañuy julli suba. bu ñu jullijee ba ñëw. bu ñu jullee ba ñëw. foofa lañu koy defee. foofa lañu koy defee. ndax bu ñu añee ba pare. ndax bu ñu ba pare. ñu bari dañuy yeeweeku. ñu bari dañuy yeeweeku. te ñëpp a ko war a ñëpp a ko war a fekkee. Euh, bi ci des. bi ci des mooy. seede la. seede la. seede boo fekkee. seede bu ma fekkee. looloo neex. loolu moo neex. muy sa baay yow. muy sa baay yow. sama bi sama maam gaañoo. bi sama maam gaañoo. boobu ngumba. boobu ngumba. saxaar du fa taxaw. saxaar du fa taxaw. day romb alir dem. day romb rek alir dem. te taalibe yi war na ñëw jaale si. te taalibe yi war naa ñëw jaale si. mu yable ci chef de gare bi. mu yeble ci chef de gare bi. dafa bëgg. dafa bëgg. bu saxaar ñëwee taxaw. bu saxaar ñëwee taxaw. ndax ñiy jaale. ndax ñiy jaale. ba ñu wàcc Kébémer. ba ñu wàcc Kébémer. wala ñu bañ a wàcc Louga. bañ a wàcc Louga ñu wàcc direct Ngumba. chef de gare bi ni ko ah, man day dama am kilifa. chef de gare bi ni ko man day dama am kilifa.

mu ñëw romb gaar bi taxawul taxawul xel gën a teey xel gën a te ca ba la war a taxaw te ca gaar ba la war a taxaw mu dem ba ca juuy bu mujj ba mu dem ba ca juuy bu mujj ba jàkkaarloo kër gi jàkkaarloo kër gi ku xam suñu kër ku xam sunu kër fi mu nekkoon boo taxawee ca juuy ba yaa ngi jàkkaarloo kër gi yaa ngi jàkkaarloo kër gi la saxaar gi daraaye bi mu fa delloo bi la saxaar gi daraaye kooku Cheikh Matar ko كوكو شريف نانا شيخ مخفو كجور شيخ نا شيخ سعد بوكو جور شيخ محمد فادل امينتو ابداتي شيخ نا محمد فادل بيتي بيتي شيخ محمد فادل دوم شيخ المخفو دوم شيخ نا شيخ سعد شيخ محمد فادل دوم امينتو منت عبداتي منت شيخ نا محمد فادل ابن ما من طالب الاخيار ابن جي المختار ابن طالب حبيب ابن طالب علي ابن السيد محمد سيدي يحيى سعيد سيدي علي شمت الدين الى عدنان Cheikh Makhtar Diop lii muy nettali dafa am solo. dafa fekke waxul ni dama dégg dafa fekke te dañu ne walay sal xabaru nag kal ayaan weddi gis bokku ca day lu am day lu am ñi ko fekke woon ñi ngi fi ñi ko fekke woon ñi ngi fi waaw kon waa Ngumba lu lan la ñu war a fayee Cheikh Mohamed Vade. waa Ngumba lan la ñu war a fayee Cheikh Mohamed Vade waa adduna sax lañu lan la war a fayee Cheikh Mohamed Vade. te ba loola paase. te nee na bala loola paase. la saxaar ga continuer taxaw. lan la sax saxaar ga continuer taxaw. Cheikh Mahfou. Cheikh Mahfou. baayam baayam. suñu biir kër la génne adduna. suñu biir kër la génne adduna. fa mu daan toog di jàng alxuraan. fa mu daan toog di jàng alxuraan. fa la génne adduna. foofa lañ ko sange. foofa lañ ko sange. ñu bëgg koo suul ci kër gi. ñu bëgg koo suul ci kër gi. sama maam ni leen lii mënta nekk. mu ni leen lii mënta nekk. ndax li tax mënta nekk. li tax mënta nekk. buñ ko fi dencee. buñ ko fi dencee. jigéen jigéen. mën nañoo tiit. mën nañoo tiit. te booba armeel ya fees na. te booba armeel ya fees na. fañ ko war a denc. mu leen xaar leen ma dem te ñëw. mu leen xaar leen ma dem te ñëw. dem ci armeel ya. dem ci armeel dellusiwaat ni leen. déet si ni leen nañ leen ko yóbbu nañ leen ko yóbbu ndax baayam ak ña ca des puus nañu ba am na place ndax baayam ak ña ca des puus nañ ba am magam magam Cheikh Al Hadraame puus na ba am nañ place am na puus na ba am na place buñ ko denc sama maam dug booy mi jumul de Cheikh Mahfou xalifa bi juumul de déedéet bu dugalee lii ci kër Cheikh Makhtar nee na bu dugalee cër bi ci kër Cheikh Makhtar juumul juumul Cheikh Mahfou ci boppam Cheikh Mahfou ci boppam na nga bi muy gaañu bi muy gaañu sa maam la doon jaale si Cheikh Dey Calaw la doon jaale si sunu maam Cheikh Dey Calaw tukki indiwu ko woon tukki indiwu ko woon da doon jaale si si bi mu jaale si pare la ñëw ci kër mu jaale see sunu maam Cheikh Dey Calaw ba pare la ni sama féetee ku ma na sama baay Cheikh saat bu féetale woon mu doon kenn ci man di Cheikh Dey Calaw génn na àdduna ma koy jaale si yaakaar naa duma ma ko raw delluwul foofu la génn àdduna dafa woo sama maam Kumba du ma raw mu woo maam Kumba maam Kumba new jël paaka bi. jël paaka bi. xot ci loxo bi. xotti loxo bi. jël ci karawu der bi. jël ci karawu der bi. bi muy toog bi muy toog. dugal ci biir. dugal ci biir. raay mu mu fermé. raay mu fermé opéré ca saase. mu ni ko. mu ni ko bu ëllëgee. bu ëllëgee. lii lañ lay xàmmeeg samay doom. lii lañ lay xàmmeeg samay doom. eh max fu muy juumul ah. ah Cheikh max fu muy juumul aadaar amul. juumul juumul. juumul juumul. waaye. waaye deseelu tuma dara bul jooy nag bàyyi Cheikh góorgóorlu bul fi jooy bul fi daanu àggaleel sa wax àggaleel bul wax demal àggaleel li nga bëgg a wax àggaleel li nga bëgg a wax mbooloo la tiim di la déglu ngay kilifa ay ay adduna bépp la tiim yaa ma doy yaa ma doy diis na wëli dëgg la diis na bul ma laaj bul ma laaj defal doog maa wax defal doog maa wax loolu la ko xalifa bi wax bu ma laaj defal doog maa wax. bu ma laaj. bu ma laaj. waxal doog maa wax. waxal doog maa wax. lan moo ci des. dara desatu ci. lan moo ci des. dara. sama sagaru jëmm bi sama sagaru jëmm bi mu jël loolu lépp wékk ma lu toll ni kër Cheikh Mahfou. mu jël lépp lu toll ni kër Cheikh Mahfou gàcc ko sama gannaaw man Cheikh Makhtar Diop mii. waaye tiitu ma. waaye tiitu ma. moo jël yan bi. moo jël bi. teg ko sama kaw bopp. teg ko sama kaw bopp. bàyyiwu ko. man sama bopp laalul bi. man sama bopp bàyyiwul yan bi. nee na la maa ci sa kanam. ci sa kër keroog nee la maa ngi sa kanam maa ngi ci sa gannaaw maa ngi sa ndeyjoor maa ngi sa càmmooñ maa ci sa kaw man Cheikh Mahfouz. tiituma dara kon bul dara. dara lu ma ko daan. te lu ma song ko daan. lu doon ak lu doon. mi. mi. nanu nanu ñu tey waxtaan man sama xel doyuma. man mii sama xel doyuma wa shaawirhum fil amri la yàlla wax. yonent bi xelam mosu ko doy. yonent bi xelam mosu ko doy. danaan wa saxaaba yi ñu waxtaan. danaan woo saxaaba yi ñu waxtaan. bu dee mbiru boppam la. bu dee mbiru boppam la. te xalaatu jël bosom te xalaatu jël jël bosam. day seet ba ca gën mu jël ko. day seet ba ca gën mu jël ko. ana sagaru nit Cheikh Makhtar. ana sagaru nit Cheikh Makhtar. mu war a yaakaar ni nag dañ koo jiital waaye moo gën mbooloo mi. mu war a yaakaar nag dañ koo jiital te moo gën mbooloo mi. Ah, erreur a sama xel doyuma sama xel doyuma de sama xel doyuma sama xel doyuma gis nga lii xilaafa Cheikh Mahfou gii xilaafa Cheikh Mahfou gii li ma bëgg li ma bëgg yàlla na ko yàlla defal te yàlla na ko yàlla defal taalibe bu ne gis ci sa bopp taalibe bu ne gis sa bopp ci xalifa Cheikh al Mahfou gii doomu Cheikh Mouhamed Fadel doomu Cheikh al Mahfou doomu Cheikh Saad bu kenn moytu bu kenn moytu déedéet déedéet bul ni Cheikh Makhtar waxuma bul ni Cheikh Makhtar waxuma nit laa nit laa xel laa yor xel laa yor mën naa fattu mën naa fattu ku ma waxalul waxal ak man. ku ma waxalul ñëwal sol saw daal wax ak man. man mën naa jariñ. la nga may wax mën naa jariñ. bañu ma kenn. bañu ma kenn. dàqu ma kenn. dàqu ma kenn. boddiwu ma kenn. boddiwu ma kenn. gën a ndaw boddiwu ma ko. ka ca gën a ndaw boddiwu ma ko. waaye it nag. waaye it nag. ah Diop nag moom. ah nag nag ah, moom. du nangu nag ku ko ku ko puus. du nangu nag ku ko puus. lànk naa lànk naa. du dem du dem. ku ma taseel rek wax la lu garaaw. ku ma taseel ku ne wax la lu garaaw. xam nga ni yaa bëgg a yàq. xamal ni yaa bëgg a yàq. te man kenn duma ma dénk dénk ko koy yàq. te man kenn du ma dénk ñu ko yàq. bañu ma ci dóor. bañu ma ci dóor. bañu ma ci saaga. bañu ma ci saaga. bañu ma ci xaste. bañu ma ci xaste. déedéet déedéet. loolu lépp dàqu ma ko. loolu lépp dàqu ko. ci kaw kii bëgg yàq. ci kaw nag ki bëgg a yàq. ak ku mu manti doon. ak ku mu manti doon. génneewu ma leen ci yéen shérif yi. génneewu ma leen ci yéen waa yéen shérif yi. asamaak yéen ñii di taalibe. asamaak yéen ñii di ay taalibe. asamaak yéen. asamaak yéen ñii. génneewu ma leen ci ñoom ñii. génneewu ma leen ci yéen ñoom ñii. kon nañ leen góorgóorlu kon nañ leen góorgóorlu defar kër sunu maam Cheikh Al Makfou yëkkati ko ba mu mel ni panaal. ñun ñoo ko mën a defar. ñun ñoo ko mën a defar. ba mais du ko defar. ba du ko defar. xool leen këri sëriñ si. xool leen këri sëriñ si. ban kër sëriñ. ban kër sëriñ. ba sëriñ ba defar. la sëriñ ba defar. du ngeen ko gis du ngeen ko gis. taalibe yi dong. taalibe yi dong. taalibe yi dong koy defar. taalibe yi dong koy defar. ba suñu yoon nekku ci. baatin ba suñu yoon nekku ci. moom affaire am la. moom affaire am la. su ko attanee. su ko attanee. bismillah bismillah. su ko attanulee. su ko mooy seet. mooy seet. waaw ah, waaye ñun suñu saayir. waaye ñun suñu saayir. nañ ci góorgóorlu ba matale ko. nañ ci góorgóorlu ba lu ko. nañ ci góorgóorlu ba matale ko. waaye nañ leen ci góorgóorlu ba matale ko. ku am dërëm. ku ci am dërëm. buñ ko xeeb buñ ko xeeb. ki am ñaar fukk bu ñu ko xeeb. ki am ñaar fukk bu ñu ko xeeb. ki am bu mu ko yéem. ki am 3 millions bu mu ko yéem na ko joxe. 1 milliard lu mu doon ci kër sëriñ. 1 milliard lan la doon ci kër sëriñ. benn allahuma ko gën. benn allahuma ju yàlla nangu moo ko gën sëriñ nee na. te doo ko perte de. te doo ko perte de. Ah, day ñëw day ñëw. ah waaw nañ leen góorgóorlu. kon Cheikh Makhtar Diop xalifa Cheikh Makhtar Diop. porte parole kër Cheikh Mahfou nee na nan nu góorgóorlu. man dañ maa jiital dong. nee na man dañ maa teg ca kanam jiital ma rek. gënuma ci kenn gënuma ci kenn. kenn laa ci gënul kenn laa ci gënul. te it wali. te nag Chérif Al Waly. dama lay ñaan. dama lay ñaan. nga ñaanal ma yàlla. nga ñaanal ma yàlla. lii ñu ma dénk. lii ñu ma dénk. bu ma ci gis sama bopp. bu ma ci gis sama bopp. bu ma ci gisee sama bopp rek musiba am. bu ma ci gisee sama bopp rek musiba am. ndax dinaa doxal leneen lu ndax dinaa doxal bu boobaa leneen lu dul loolu. yaa ma doy. te yaa ma doy. ba pare nag ma yàq. ba ma yàq. ëpp na salaamaaleykum wa rahmatulah. Chérif nee na euh, sunu baay bii di dugg si nii. mbokkum mamma mint salaama la. mbokkum mamma mint salaama la yaayu Cheikh Al Makhfou. kon kon. xam ngeen ni liñ doon wax. kon nee na liñ doon wax. seede saa ngi saa ngi nii. ci des bala ñoo sori ci moom. bi ci des bala ñoo sori ci góor gii. dañoo ku daan toog dañoo am ku daan toog fii. daan ñu wétali. daan ñu wétali. yàlla dogal. yàlla dogal. yaram sutante ren yaramam sutante ñëwul ñëwul muy Cheikh Lamine fay muy Cheikh Lamine fay bàyyi ndeyas su ma leen bàyyi ndeyas su ma leen toog na ko ñëpp ñaanal yàlla guddal fanam yàlla guddal fanam yokk ko wér yokk ko wér suturaal ko suturaal ko suturaal njabootam suturaal njabootam Cheikh Mahfouka fii la daan nekk Chérif nee na Cheikh Mahfouka fii la daan nekk yàlla dogal wallahi yàlla dogal yàlla dogal mu génn àdduna mu génn lool di setu Cheikh malika Ka moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla njéggal ak yërmande